dégg naa lépp li mu wax waaye seetaan koog man dox. kii bi laa doon indil bon de coupure bi quoi dama coupé ci suuf ba pare. ay jóg xàmme woo ma xanaa. tan bombe ah. waaw man la kay. sa nga man dama lay bëggee sax. Ah, wala ba ma wax ay waxi film de duñ ma coupé courant nga may wax ay waxi film boobu. man am naa métier quoi parce que tan dafa ma bëgg a jàppe benn waa joo xamante ne amul métier amul dara quoi. sama woowee rek xam nga waaw ma rek la laa loolu du dara. di wax ak service d'hygiène chaque jour mu ñëw tëj seen bicket yi ngeen raat raat li ngeen di bon da ngeen a bon yow chaque man laa yoreel dara de waaw macha man maa koy wax fii maa koy waat ne kenn dootuma couper courant te sama jabar kenn du ko dootu ko humilier njaayeen njaayeen njaayeen njaayeen

waaw dem naa si dugal la. waaw. kon nga. yow. dugal naa la cuub. cuub cuub lay doon. cuub waaw dugal naa la yëpp am na yëpp. waaw da ngay jël bëri bi soo demee nga jënd si ceeb ak diwlin waaw. ah Serigne Serigne waaroo tey di ci dépasse mu jox ko waxul dara dara dara jël ko nii rek dem sans wax wane ko tey réew de ah tey de jaaxle naa changement moom am na tey dëgg yàlla tey ma jox ko xaalis rek waxul dara tey changement am na moom tey moom yaru na moom. alo waaw grand duri <laughs> waaw man la sa boy tan waaw <laughs> ça va si jàmm waaw grand man dama amoon benn waaw urgent rek urgent benn problème waaw comme li ma la waxoon ne pour ma deseel la ko ci affaire télé bi waaw léegi est-ce que mën naa ñëw récupérer ko lii li ma fa bàyyi woon noonu après ma complété la jox la jox la lépp ah il faut ma am lu ma gaaraat waaw d'accord je réfléchis maa ngi maa ngi ciy xalaat ngi ñëw sa lu ma gaaraat awal go. mooy defari télé bi. télé bi waaw. télé bi xew. dafa amoon quelques problème rek. yu si ci baax na waay yow télé bi courant ba ñu coupé ba kii ba léegi loo xam naa bu ñuy coupé la la am lu ci. wuy ma xam naa la bu baax na ngeen si kaw lu wax bàyyi télé bi ñëwal. ñëwal rek foo demoon bi. ñëwal rek. njaayeen njaayeen njaayeen njaayeen Bombe njaayeen njaayeen njaayeen kër gee bari coow bay lat njaay alias kan Bombe Bombe jeena bët gi nelaw titi mooy jabaram. Ñoo la. non dara. Hmm? dara booy lan la yow. waaw xiddi ma waay yow nag li ma leen commencé bañ boo leen ko xamoon yow foo demoon salon jar lii lu fi jar la naa ko da nga doon yow yaa mës a gis ma jël materiel ci kër gi dem di ko jaay te dama lay laaj question la répondre ba xam mës ngaa gis ma jël fii matériel dem di ko jaay

mu ko doon tayle dama ko dama koy man du ma dem fee jàmbur ñu naan damay fekk ay courant yaa ngi dégg léegi yow télé bi teg moom dama koy bax. non bul ko bàyyi. attends rek sabar gi mënoo ma xaalis. ma jox la nga defar ci ay carte ak lu ne préparé ko jox tëjkat ba avance naa ma da nga koy bàyyi loolu moom mooy perte dis perte lestec loolooy perte dis perte lestec bi solution bi de te yow amoo foo mën a lijjant xaas ba sabar gi kese la gàcce la gàcce waxuma la yëkkal loo nit waaye mën nga tee sax dee. am ak ñàkk moo ànd léegi benn affaire la ñuy def dem na nii ah te sama kàddu aussi nga wax dëgg la sama kàddu raw na di ko xam kan mooy Mounas. pour wax. nga Mounas ku ah may mun a wax nga la xam <laughs> dëgg la kay. <laughs> ah ñoom de ay figurant la. voilà figurante la. léegi casier yi may joxe ak xaalis bi ma mën naa si jox dama koy récupéré boole ko sa sabar bi passé idée la sax ma jox la ko nga jëli courant bi si des nga teg ko agent de force mais nit ñi njëkk. Hmm. ah de solution bu baax la. <laughs> ah loolu dama wax dëgg yàlla oma dara lu ma ci teg ndax wax dëgg yàlla jabar ju baax <laughs> nii lay def daal wax dëgg waay man nag wax dëgg yàlla nag li nit ñi naan titi daa tàggat daa bari histoire yëpp moom wax dëgg yàlla ndekete xol bu rafet nga ah, eh. waaw waaye waxal waaye kontaan day nag mara bégloo baal ma waaw baal ma baal ma la xam nga tëggkat sabar laa woon <laughs> loxo yi la loxo yi mais bàyyi ni nga demee jëlaata télé bi teg si nekkoon yi jekkul dégg xam naan de yàlla ngeen xëy yéen ñëpp si buru ngeen booy Lobaas yow moom yaa ci gën a soof yow booy yow moom yaa ma gën a lakkal yow. waaw Maodo. Euh, yàgg Ahmed man maa bëggoon ñu def rencontre bi ñu waxtaan. parce que Titi dafa ñëw sànq di waxtaan ak man ci problème mu kër geeg ak ni mu ciy jàppee ak yooyu ndaxte wax dëgg yàlla umpale woo leen ni courant bi dañ koo coupé te des fois dépend xaw met ben loxo mom mo xaw met ah yalla dogal nak ñom ñuy def sabar moy sen sabar gi ñu wara def mu ne wax deug yalla daf ci japp nak lepp lo xamni da am na ko ci sabar gi man la koy dimbalé ci kër gi lolo waral nak ma bëggol yeenit ngeen japp ci sabar bi manam ñu jema xot do def ay hôtesse aussi defaral ko bisam bam waaw ñun ñëpp ñu jàpp ci rek jàpp ci bis bi ñu jéem a xool nan nañu defee ba def doon ay hôtes ak aussi nan nañu def ba jàpp ci sabar bi bu aaja woo sax ñu dugg fecc bëggal ko bëggal ko daal. dugg ci fecc bëggal ko. waaw. waaw loolu laa xeeb pour ñu oteesu. oteesu sabar ñoom ci man ak yow ak moom ñu nuroo ay yére oteesu la wax. nekk sawar gi. moom loolu la moom loolu la wax. ah yow ngeen oteesee ñaar waaye am na loolu am na tey nga bañ a wax loolu. ñoo ñëw ci sawar naa ñoo ñu oteesu dem ci sawar man dañoo mos a xamee dem sawar. ma ne naa oteesu sawar. déedéet demoo sabar sa sabar. dawar tëddee. ba jàng yi moo mënoon nañoo ko desu wala suuf ñu jàng yi sawar ñëw nga bëgg ñu ko desu. yow daal bu la titi ëlëm ëlëm yi këlëñ këlëñ la ba pare rek yow da ngay génn rek bu wax comme nii yow yaakaar nga yow ñu naan ay oto su ma waxatuma nga naan dugg ci sabar fecc man. ah loolu damaa wax ñu dëgg la wax leen rek dëgg la wax mu naan ngeen dugg fekk. mais nan nga mën a xalaatee. non dëgg waaw dafa ndànk rek mais nan nga mën a xalaatee ñu naan ay affaire hôtesse ak ay fecc ak ay affaire yooyu. non bu dee sabar ca àll ba yëfi jigéen la mais bu dee sabar ci biir kër gi. jigéen ñi am na yow yow xalaatal leneen. ah man de wax dëgg yàlla pour man jàppee wu ma ko dara pour man. pour man de wax dëgg yàlla dara. yow kay moom nga xalaat lu nice. bëgg na dimbali bëgg na jàpp

waaw ne moom la may moom lay def ci kër gi. wax dëgg yàlla jigéen ju baax. mais loolu kan la ko wax. wax. moo tax ma bëggoon nag ñu jàppale ko ci bisam. waaw voilà da nga ko jàppale. ko wax nag. waaw ci jëw fee. la ko def tàccu taxaw fanaan ba lay tàccu sax non man moom xalaat la. waaw waaw kon. dara ko kon kon léegi ñu naan ay ay waaw comme que noonu ngeen gisee y' a pas de problème. man sama nit mu ngi non jàppale ko moom mën na nekk mais nañ xalaat leneen. ah waaw kon baax na parce que man nag bëggoon ngeen jàpp ci organisation bi rek mais comme que noonu ngeen ko gisee. waaw non mais loolu du organisation. waaw waaw am man daal en tout cas ku fekk dinaa fekk ku fekkul dinaa fekk. ku ko jàppale dinaa ko jàppale ku ko jàppalewul dinaa ko. waaw non non non dugg si titi doxal dox bi dugg si dey moo accu kumba taab ko uy sama nday doxal ak moom kiti kiti uy sama nday wëti soo ko laalee dinaa lët vaay vaay vaay vaay vaay vaay vaay vaay vaay vaay mbasa mbasa ma ñëw dox bi ndugg si yaay boroom salon ngéwél xoolal nday asu taxawal fii bu ma ne nday asu doxal dox bi ndugg si nga ne takut gët xoolal boo dugg see da nga naan nii nga ni pàcce pàcce nday asu doxal dox bi ndugg si bërëng sa bërigo bu defee dara bërigo bu deful dara bërigo bërëng sa bërigo eh, wuy yaay damaa bëgg nga toj fi ak waa compagnie bëgg sa réew ana waa compagnie bëgg sa réew waa compagnie bëgg sa waaw damay nuyu ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant ku si nekk ñu ngi lay ñaanal fi nga toog yàlla nga gudd fan bañ koy def ay ati at parce que da ngeen a baax chaque année ñu def ko te année bu ñëw dàq ba sa des waaye du kenn nag ku sama mag yi toog yéen tamit da ngeen a baax na ñu leen ko marrainee su leen neexee ngeen bañ a ñëw mais da ngeen bàyyi seen lépp ngeen ñëw ñu leen di sant di leen gërëm ñun ñëpp waaw. Laat mooy sama ndaw Malendon May, c'est telle réalité, Yael, bon Yael, Yael, Yael.